waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna wërgal këpp salaamaaleykum Rufisque maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Babacar Amar ngeen gën ko xam ci xudaar comme d'habitude bon juste di ñëwaat ci li nga xamante ni xew na fi démb euh, ci réew mi ñu koy naqarlu lool di ko ñaawlu ndax violence du kenn ko ko bëgg waaye tamit ci loolu ñu gis ne si dafa am suñu yenn kilifa yi nga xam ne dañoo génn te ñu bokk ci nguur génn def discours bu doy waar mooy wax yoo xam ne wax yu mënoon na ñàkk ndax bu fekkente ne kilifa dañ la dénk réew yaakaar naa ne war nga mën a defar sa communication ba boo waxee askan bi yëpp kontan bo waxe askan bi yeb gis ci sen bop waye kilifa genn taxaw wax ne ñi nga xamanteni xalé yi nga xamne ñu ngi def li dafa am ñu nekk seen ginaaw di len manipuler à ñu taal mi du kaddu bo xamanteni kaddu gu ñuy lu la tamit di wax ne euh, réew mi ñu nekk ñun ñoko bok li Aziz si doon ñaan ne bu ñu nyunyop ci gal gi ñun ñëpp nañu ñaan yalla gal gi muccu bu gal gi muccé ñun ñëpp ñu muccu bu gal gi muccul kenn du muccu ci ñun donc dañuy ñaan gal gi muy Sénégal yalla na muccu ba ñun ñu muccu violence kenn rafet loko ben ñu dégg ñu wax né il faut ñu xam ben affaire que ni fi Sénégal bi ñu nek ni bu dé amna opposant ben la muy président Ousmane Sonko suko wesso askan bi ñuy opposé sen bop lepp lu fi nek askan bi ñoko xéxal sen bop du kenen à part Ousmane Sonko. donc pour ñu bañ di takal ay nit pour ñu bañ di wax ay nit pour ñu bañ di jaxassé réew mi pour ñu bañ di tal réew mi tamit ñu bay ci xel ndax couvre-feu bi na né ne wul njariñ waxon né nañu respecter mesures yi fexe woon ñuy takk masque yi fexe woon ñuy laal gel yi fexe woon bistata yi école yi daara yi ñu mën ko contrôler ba nga xamante ni matuwaay yëpp dinañ ko mën a jël ba ñëpp nekk si jàmm yaakaaroon naa ne loolu moo gënoon ne ak da ne da ngay waat askan bi. léegi nag pour ñu bañ a tooñ kenn du benn opposant askan bi ñuy opposel seen bopp Sénégal sax bu ñuy wax benn opposant moo fi am muy président Ousmane Sonko donc ñu ngi oo Sénégalais yëpp ci calme que ni jeunesse bi nañu dem toog parce que ñun ñoo yaakaar gis nañ jëmm ñi ci loru. te mën na ñàkk donc di di di di di wax ne suñu njiiti aussi nañu defaraat seen discours nañu defaraat seen discours parce que ku ñu dénk réew dafa am noo war di waxee donc ñun xamuñu lan moo nekk ci ginnaaw dem leen ngeen tëdd bi kenn xamul lu ci nekk